dal leen ak jàmm mbokk internet yi kilee di Rayane Hicham ñu gën koo xam ci borom Planète Kebab moom moo gañe ñaari marché yi nga xamante ne ñu ngi toll ci fukk ak juróom ñaari milliards ci suñu xaalis jëm ci wàllu yóbbu ko séddale lilee di ceeb bi nga xamante ne nguur gi daf ko fàggandikoo ngir dimbale ko askan bu Sénégal loolu le tax na ba ñenn ñi njortu ne mbir mi dafa am suul bukki suli bukki waaye moom borom société yooyu jot na génn yëkkati ay kàddu ngir leeral ak weddi bépp njuuj njaaj bu ñu mën a njort ci mbir mi daanaka sax ci ay kàddoom mi ngi wax ne je n'ai rien à cacher maanaam awma dara lu may nëbb ci mbir mi ndax jàpp na ne ñaari société mi yii bu ci mel ni bii di Avantisuar la ñu gagné marché transport boobule Rayane Hicham di xam le ne nëbb ci dara te sax nag daanaka su fekk ne dafa am lum ciy nëbb kon naka du wane kayit yi nga xamante nii moom mooy firndeel anam ba mu gagné yooyu le marché ab waxtaan bu mu seqoon nag suñuy naataangoo yu nekk ca la franco libanais bi di borom Planète Kebab xamle na ne moom kay du rek ne ci mbirum sandwiching bi nga xamante ne ci la ko ñëpp xamee rek la nekk mi ngi wax ne nekkul ne dafa tàmbalee ci planète kebab rek moo tax ba bëggul dal di sore ci li nga xamante ne mooy liggéeyam ndax ku am ambition la ngir tontu ba tey ñi nga xamante ne ñoo koy joxoñ baaraamu tuuma moom milee di Rayan Issam wax na ne société mbilee di Avantisal bi nga xamante ne moom moo gañe marché ba juróom-ñeenti milliards yu tegal juróom benn junne ak ñaar téeméer rek ci million mi ngi doon wàllum importation de riz yi daanaka ci lu ëpp ñeenti at teg ca itam moom yor na lépp lu war ngir mën a doon importateur de riz ba tey Mooma Hicham de mu ngi xam le ne bokk gu mu bokk ak jàppale gu mu bëgg a jàppale réewam bii di Sénégal moo taxoon na mu nangu daal di jël yi les marché ci daanaka njëg li nga xamante ne sax tolloowul ak njëg li nga xamante ne dëgg-dëgg moom la l'état bu Sénégal waroon a joxe ci marché bi ci lu jaar yoon te li koy firndeel yoo xamante ne nii wootee ngir xool kan lay mën a jox loolu le bari na ay commerçant yoo xamante ne nii jotuñu joxe seeni kayit ndax ñoom dañoo jàpp ne njëg li guvernement bi proposé lu ndaw la buñ ko méngalee ak li waroon a nekk moom nag bëgg dugal loxoom ci xeex bu ñuy xeex covid 19 ci réewum Sénégal rek dong kese moo waral mu dal di jël yi les marché ci njëg gu xeebu gi waaye ba tey itam muy xam xamle ne ay risque yu bari moom la jël ci mbir mi ndax daanaka dafa dem lépp daal di koy jébbal gouvernement bi ci loo xamante ne nii gouvernement bi ba fi mu toll nii yëkkatiwul benn dërëm teg ko ci loxoom te ba fi mu toll nii ñëpp xam nañ ne fu mu toll nii état bi xamaguñu kañ lay mën a boobu boobule bor ci yooyu lee kàddu ci la kile di Ryan Echam ñu gën koo xam ci patron Planète Kebab daal di jeexalee ay kàddoom ñu ngi leen di jaajëfal